asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul Serigne Mountakha xalifa général kulu murit yàlla na fi yàgg te wér ci ndigalul Serigne Anta Niang xalifa maam Thierno Birahim yàlla na fi yàgg te wér ci ndigalul Serigne maam Thierno xalifa Serigne Cheikh Awa Balla ci ndigalul Serigne Khadim Docteur xalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacke Serigne Khalil moom Serigne Modou Mokhtar di fàttali bisu cant bi mu daan def ci pay pay ak fàttaliku Cheikh Modou Mokhtar le 20 janvier sëriñ bi di wax ni mi ngi ci woo mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi yëpp. ci tur waa dëkk bi yëpp bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw jàng yi nag ñu ngi am le 20 janvier 2024 ci pay-pay dañ ciy woo nag mboolem jànkate alxuraan ñu nekk ci tund wi mboolem daar yi wër pay-pay ñu ngi leen di woo. neuf heures la ñu commencé njàngoon alxuraan ba midi benn benn tund benn sëriñ bu fi nekk kilifa gu fi nekk ñu ngi lay wàcc sunu màggal gi. ñu ngi jiital la préfet bu Mirina Ndakar muy Sayer Diop di ci teg la maire de la commune de Mirina Ndakar ay Aymerou Gningue waaye du ñu fàtte ah son adjoint Bara Ndiaye waaye du ñu fàtte Ousseynou Fall moom itam adjoint au maire ca Mirina Ndakar waaye du ñu fàtte koo xamante ni siitam kenn la ci njaboot yi muy suñu waajur wi toog di. suñu baay Mamour Diop waaye du ñu fàtte ñi nga xamante ni si ñoom la yàlla dogal ñu dëkkee commune bu Pekes muy le commune le maire de la commune de Pekes Moussa Ndiaw Thiam le maire de Niakhène la maire de Mbayeen la maire de Ngandiouf waaye noonu la ñuy def rek yëgal ko monsieur Djibril mbay le maire sortant bu Pekes waaye balaa ñuy tënk kàddu gi daa ñu woo mbooleem village boo xamante ni si rek nekk na ci biir commune bu Pekes. ma di ma di ci woo nag ñi ñëpp ñoo xëy ñoo dëkk Mbakol tama jiite woon leen deux mille euh, ba deux mille ngi leen di waat ba deux laa ko tàmbali ba mu doog a yegg mu bindal ko téeméeri teel bi ak ñaar fukk commune Saalu Cilmaxa. ma di ci woo nag ñi ma ko bokkal ñëpp di nga xëy ne ñoom laa bokkal sëñ Modou Mokhtar te aju ci sëñ Sidi ma di la ci bis bi di ci jiital nag. juróom ben fukki dekk yi dëkk xey yep ma ngi len ci wo kuma ma ci lebalon nak ma fay ci fi kuma ma ci lebaloon da nga ñew fi ci pay-pay ndax mom la am mom lay sago di wax ci turu serigne Abdou Say mi nga xamni moy khalifa serigne mudum Modou tay fi ci kaw suuf di bok ak soxna ya xam mi wajuru serigne Sidi mi ñu bok serigne mudum Mbodj ñu ñew nak di wo mbollem bokki mbojini ak bokki nga xam ni yëpp seen yaakaar da nek ci biir ke serigne mudum naka noonu ñi ngi woo sun sëriñ si yi nga xam ne ñoom itam dañoo bokk ak sëriñ Sidi di sëriñ falilu Fall moom it ñu ngi ko ci woo sëriñ Falilou Fall Cheikh sëriñ Moustapha Fall moom sëriñ Yiddaali ak sëriñ taala Fall moom sëriñ Ngunda kon daal ñu ngi woo mboolem koo xam ne sa yaakaar daa nekk ci sëñ Modou Mbodj sëriñ Sidi ngi lay woo ci bisam bii. mbokk yi noo ngi yëkkati suñu kaddu ci turu Alxaaji Sumbul Silla bi nga xam ne mooy jëwri ni bunti këri sëñ Modou Makhtar Mbacke yëpp. ñi ngi woo mbooleem koo xam ne da nga aju ci kër sëriñ Modou Makhtar rawatina nag nga aju ci kër sëriñ Khalilou Rahman Mbacké ñi ngi lay yëgal di la fàttali bis bi nga xam ne sëriñ Sidi Mbacké daf koy woote fii ci pay-pay di ko yëgal it sëriñ Modou Makhtar Sill mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Jili Mbacké di ko yëgal nag sëriñ Pate Diop ca Daarul Moxti di jëwriñu sëriñ Cheikh Assa Dieye Mbacké Makhtar waaye di ko yëgal sëriñ Modou Makhtar Diop bene di jëwriñu sëriñ Thierno Mbacké Makhtar ak sëñ Amsatou ak mboolem ñoom ko bokkal di ko yëgal nag mbay Mbaye Diouf ci njaareem di jëwriñu Serigne Mbacke Soxna Lo ak Serigne Modou Mahfous ak njaboot ga féete foofee ci njaareem di ko yëgal nag mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër Serigne Cheikh Awa Balla rawatina bokki Daaru naan ak dëkk yi wër Daaru Manaan ak bokk yi nga xam ne ñoo dëkk bayti ak dëkk yi nga xam ne ñoo wër bayti ak mboolem dongab laxasaay bu mas a jaar ci Cheikh Mahamadou Mokhtar Serigne Sidi Mbacke mi ngi lay fàttali bis bi nga xam ne waaye juróom wa moo ko sosoon bàyyee ko ko mu ko wéer ci ndigalu kilifaam yu baax yi fi nekk kon mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn. di wax nag ci turu Faata Ngom mii suñu jiit ci ci daayirab sëñ Sidi Mbacke bi di woo tund wépp te bëgg nag ñëpp teewal ñu yéen mbokk jigéen ñi tam bu bis baa na ñëpp génn wàcc génn seen i néeg wàcc lali jox gan ñi. te topato len teru len teral len taxawu ko niko ko Sidi beugé ba bis bi jeex. bisub sëñ Sidi mbacké bi mang ci wo jurom ñaar fukki dekk ak ñatt yi bok ci commune Pekes kep ko xamni jigen nga jiiteb daayira kep ko xamni jigen nga nga ak mbotay ma ngi lay ñaan fo mën nek bo déggé suñu appel bi na nga tak sa ndig soñ ñi nga andal ngeen teew ci bisub sëñ Sidi mbacké bi ndax teew ci kat mo gën bañ ci teew ndax li fondement bis bee tax. ndax ku nekk xam na sëñ sii di Maxtaar Mbàkke jàmbaari lislaam gayndeg yoonu murit kon lépp lu mu lu mu sànc ci ci dëkk rek buñ ko wootee ku ko dégg war ngaa ñëw ndax danga fay jariñoo waaye doo fa wàññi ko di woo sama mbokki bopp képp koo xam ne bokk nga ci famille Njare Mbay bokk ci Malick Diop bisub sëñ Madu Maxtaar Mbàkke bi nan ko jël ni ko ciix téye ko ndax noo ko moom mbokki julliti mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu baax leen siyaara di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi moom sëñ Modou Muxtaar moom sëñ Seexoo Balla di ko ñaanal fan gudd lool di ko ñaanal wér ah, ñi ngi woote ci turu fédération almanaan muy ta muy waa kër sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Modou Muxtaar ah, di woo jëwrin yëpp bépp jëwrin boo xamante ne si rek jiite nga section rek ñi ngi lay woo ci bis bi

di di Guy Ndiogu di di euh, di Pay Pay di euh, Mbadia Kane di Mbadia Ndioufène di Mboyeen di Guy Ndiogu ñëpp ñu leen di woo ci bis bii. ñoo ngi wax ci turu sëñ Khalil Rahman Mbacké mi nga xam mooy xalifab sëñ Mouhamadou Makhtar euh, di te ci bisu Serigne Sidi bii di Touba Pay Pay di le 20 janvier deux mille vingt deux mille vingt quatre di ci woo mbooleem buntu kër sëñ Modou Makhtar yëpp waaye noonu it woo tamit ci nga xamante ne ñoo sëtu sëñ Cheikh Awa Balla surtout si Cheikh Awa Balla ñëpp di ci jiital ko waxee léegi Khadim docteur ak mbooleem njabootu sëñ Modou Awa Balla gi ndax ku ne sëñ Cheikh Awa Balla ne sëñ Rahman nee na mi woo képp koo xamante ne aju nga ci kër sëñ Modou Makhtar bu la fay nga ci Touba Pay Pay yaan nañ ci ak jàmm ndax lii lu am solo lu rafet la ndax fàttaliku rek la fàttaliku jëmm ju baax te loolu moom yàlla sunu borom bi moo na ko wax ci alquran ndax wa sakkir fa inna shikra tanfa'ul kon nag li nga xamante ni yàlla sunu borom digle na ko ci ak fàttaliku yàlla nañ ko sunu borom defal ba ku fi ñëw ak jàmm loo fi séntu yàlla nag sunu borom def lu kawe sa njott mbokk yi jërë ngeen jëf bis baa ngi noonu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Amadou Mokhtar mooy woote le vingt ca pay bi wax ni bu ñu xëyee nag ci programme bi dañuy xëyee dañuy jàng alxuraan 14 heures ñu bernde 17 heures ñu def cérémonie 20 heures ba 22 heures siyaare taalibe yi 23 heures et conférence Serigne Gana Messere bu ko defee nag Serigne Khadim Kebe Serigne Mor Madina Sey Mbour Serigne Mor Taale Gueye ñoom ñooy fanaane guddi gi mbokk yi bis baa ngi noonu Serigne Sidi mi ngi ci woo mbokk yi ak xarit yi di ci woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn yàlla nañ ko fekk ak jàmm